xamal nit ñi rek moy que euh, par rapport ak li ñuy wax ci deng nit ñi nañu dalal seen xel ci deng deng tu sibiru bi nga xamne sibiru bi nga xamne xam nañ ko sax moko ëpp moo ëpp dangar moy febar bi nga xamne ah li muy li ñu nemmeeku li muy rey bëri wul mun nañ wax ne sax que presque amul kon deng nit ñi nañu dalal seen xel ci dengue mooy du feebar bu garaaw feebar bi nga xam ne yoo moo koy joxe comme sibiru bi ñu xam ne xam nañ ko mooy paludisme ñoom ñoo bokk pratiquement li koy xeet xeetu euh, yoo presque moo koy joxe donc jarul tiit jarul nit ñi di di di di saalit ci feebar boobu te feebar boobu ni ñu koy màndargale mooy bopp buy metti yaram buy tàng nit ki mun na am muy wàccu yax yi di ruux wala cër yëpp xaw a euh, metti euh, wala ñuy bañ loolu mooy feebaru dengue yenn saa yi nag nee nañu li ñu xam aussi mooy que feebar bi mun nañu wax ne que yenn saa yi mun na indil nit ki di euh, maanaam mu am forme bi nga xam ne forme boobu moom la ñu gën a ragal mooy mu garaaw dégg nga loolu mun na am mais yàlla dafa def loolu tamit bëriwul te dengue bi am actuellement aussi mun nañu xam euh, nit ñi nañ leen xamal aussi que euh, service de santé yëpp ñu ngi ci taxaw jóg nañ ci di ko xeex Fatick la njëkkee te mun nañu wax ne que fatigue, fi ñu fi mu depuis 19 septembre mun nañu wax ne que amatul cas pratiquement depuis le 9 octobre pardon amatul benn cas ci fatigue, te mesure yi nga xam ne euh, xeex yi nga xam ne yu ñu sumboon fatigue yooyu rek lañ yóbbu Touba ak service d'hygiène kon nag te aussi aussi nit ñi nañu xam lenn feebar bi puisque yoo moo koy joxe te yoo bi aussi moom fi muy nëbbatoo wala di fa am ay nen maanaam ci bërëb bi am ndox wala ay pot de fleur wala wetu climatiseur yi fi nga xam ne ndox ay taataa ndox wala ay fu xaw a ay pneu yu nga nekk ci biir kër gi foofu lay nen su nenee aussi euh, doom yi su ñu demee ba mag ba mun a naaw commencé di di di matt nit ñi di joxe doomu jàngoro jooju te loolu aussi service d'hygiène taxaw na ci Fatick pompe dëkk euh, dëkk boobu euh, xeex xeetu euh, xeex boobu moo am Touba dégg nga ñu ngi pompe nit ñaa ngi yeete te aussi mun nañu wax ne que cas yi liñ ci wax yépp maanaam toll fi mu toll ci ay juróom juróom fukki cas walla loolu yépp du loolu moo ñu amal solo ñun li ñu amal solo mooy feebar bi nit ñu koy saytoo est-ce que mu ngi jëm ci wàññeeku walla est-ce ci law la jëm mais ñun bi ñu saytoo ci li ñu saytoo ak ni ñu nemmee ko ba léegi feebar bi ci néew doole la jëm parce que li ko doon may doole mooy taw yu takkarnaase walla lu mel noonu te yàlla dafa def taw bi fu mu nekk nii dafa wàññeeku te aussi service di d'hygiène balaa euh, euh, màggal di am toujours walla gàmmu di am day dem ci bërëb yooyu di pompe te pompe yooyu suy am Euh, yoo boobu du mun a law bay indi leneen kon nag nit ñi nañu dalal seen xel di tëdd ci sànke yi te fépp fi nga xam ne ci biir kër yi nga xam ne que ay taataa ndox moo fa nekk wala ay fi nga xam ne ay fleur wala nangam wala même fi ñuy réserver ndox ndox yi aussi dañoo bëgg ñu leen di ub su dee ay ndaala wala leneen fi ñuy denc ndox ñu leen di ub balaa yooyu dafa dugg loolu moo am mais di leen wax aussi ñu dalal seen xel rek du feebar bi nga xam ne vraiment dina fi te aussi feebar bi yàgg na fi di euh, yàgg na di fi am te problème mosu ci am kon nak nit ñi buñ ko néewal doole sax waaye nak nañu xamné rek fièvre la comme yeneen fièvre yi day ñëw dem aussi euh, ñu ci taxaw ministère de la santé té ministère de la santé aussi amna jumtu jumtukaay partenaire bu ñëw fekk ñu ci biir tamit ñu ngi ci sinon société depuis su ngeen sété depuis 19 septembre ba légui ñun ñoo nekk ci terrain bi ak aussi ministre de la santé limu mu ak équipe yi ñom ñëpp ñu service d'hygiène ñaari téeméeri agent d'hygiène ñu ngi Touba di pomper di pomper di dugg ci kër yi té nit ñi am xam aussi né nañ ko dañoo feebar ñoom ñëpp pratiquement euh, euh amul kenn ki nga xamné ne dafa hospitalisé wala dafa entrer pratiquement même ki nga xamné né won nañ ko dafa génn àdduna koku ci analyse yi rek lañu xol xamné xam amon nako mais mën na am du loola ko yóbbu sax kon nak euh, moy li nga xamné rek loolu la amon ci tënk limay wax euh di sant ñëpp di wax journaliste aussi ñu jappalé ñu ci yeete yee nit ñi di leen xamal message bi ak euh, maanaam xeetu sibiru la rek dégg nga comme sibi comme comme sibiru te sibiru bi nga xam ne moom la ñu gën a ragal sax que moom deng bi ngeen di wax. benn yow moom moo koy jëlee si nit ku malaat bu màttee beneen nit bu feebarul mu mu mu jox ko doomu jàngoro bi léegi nag euh, yow boobu dafa nekk yow boo xam ne dafa xawa particulier un parce que dafa melul comme yow paludisme bi.

Euh, yow bu nga xam ne moom mooy mën a euh, jëlee feebar bi si nit ku feebar jox ko beneen nit yow boobu nga mën ko faagaagal def ba nga xam ne daal euh, développement si biir communauté bi du bari te yow boobu nag boo ko xoolee souvent dafa nekk yow boo xam ni si biir kër yi lay gën di nekk at li ko wër parce que moom mooy li lu ko def moom mooy particularité bi fu muy faral di nen parce que nu muy fu muy nen maanaam dafay nekk ay ay kii xottu pot wala ay ndab wala ay barigo yi ñuy def ndox lu mu néew néew lu mu tuuti tuuti fofu mën na fa nen te yoy nak pour euh, dindi ko il faut ñuy euh, amener population bi pour que comme si contexte nawet la ñu nekk yi nga xamni da fay nek ay manam ay débris yo xamni ne mën na constituer ay gîte manam fu xamni ne nen kii yoo bi mën na fa nen ñu koy débarrasser ci kër gi donc lolu lu koy ki moom mooy set setal kër yi bo li nga xamni utiliser wuñ len ñu len di depp barigo yi def ndox ñu leen di dëpp ñu ñu leen di upp pono yi nga xam ni tamit fay usager kenn utiliser wu ko ñuy def si kër yi ñu leen di jële foofu di sànni fu sori parce que yooyu yëpp dafa nekk yoo xam ni ndox bi siy taa nen kii bi yoo bi mën na si nen loolu vraiment participation communauté bi la parce que boo xoolee à Fatick au-delà intervention yi ñu fa def maanaam insecticide yi ñu fa def maanaam pulvériser kër yi nga xam ni fa la maladie yi nekkoon ak kër yi li leen wër yëpp ñu pulvériser biir kër yooyu def tam euh, traitement spatial ci mbedd mi maanaam xeetu poudre la mais du poudre ben insecticide la buñuy euh, utiliser par thermo euh, nébulisation yenen xétu machine la yooyu yëpp buñ ko bolé mom mo def yalla dimbalé ñu ba fimné fimné ne fi ne mën nañu wax ni alhamdoulillah légui nak dispositif bobu, mom lañu jël transféré ka à Touba bobu depuis nak le huit équipe yi ñi ngi siy continuer di liggéey li ñuy bëgg dal moy toujours invité parce que aussi Fatick il faut dire que nous avons une activité importante pour bu parce que si nous fa demain, en mission après ba waxtaan ak euh, équipe locale bi vous. si le maire bi vraiment euh, la décision nous def une opération une opération sur deux jours Nous avons une bi nettoyer Nous yëpp participer aussi si réduire réduire aussi gîtes yi nga xam les gîtes potentiels loolu aussi je pense que ni Touba gis nañ ko fa ak euh, action yi nga xam ni pulvérisation yi ñi ngi fay def yaakaar nañ ni loolu mën na contribuer bu baax pour wàññi euh, maanaam xeetu euh, yoo boobu fa nekk pour mën a feebar bi ñu yamale ko foofu di xamal nag nit ñi ni aussi y a des mesures purement individuelles yoo xam ni aussi bu fekkee ni nit ñi mën nañ koy def comme bëccëg bi lay yoo bi di gën di matte di faral di sol bu fekkee ni gis nañ ni daal am na yi ñu ngi si dëkk bi ñuy sol faral di sol mbubb yu gudd aussi aussi à titre individuel am na ay euh, produits répulsifs yoo xam ni aussi nay jaar dans les pharmacies nit ñi aussi mën nañ ko utiliser bu fekkee bëccëg nga xam ni yooyu après duñ la mën a euh, ñëw pour mat la yooyu moom dafa nekk ay mesures purement individuelles mais surtout mesures collectives yi nga yi ñuy xamal population bi moy surtout assainissement bi nous dal ñu set setal dëkk yi bu baax way yi nous lepp lu ko wër ñu ko wàññee booleeg intervention yi def manam pompe yi def ci kër yi pour euh, euh, euh, yoy yi nga xamni en phase adulte ñu wacce sen densité bu baaxa baaxa baax a loolu nañ ni buñ ko continuer yalla dinañ ci nous jappalé nga bi contexte nawet contexte ce qui fait que nous, comme Fébarbi, bi aussi c'est endémique dans ce pays aussi comme dans d'autres pays invité nous aussi euh, direct directive une brigade yep, ici afin dans toutes les régions même si nous xam ni feebar bi wanewuñ ko fi jox pour nous intensifier la intensifier visite de secteur yi ñuy def visite dans les quartiers mais surtout nous def accent bi ci dugg ci biir kër population bi

action yi ñu def dañ ko waroon natt ñaari ay bés loolu lañ def ñu wane ni vraiment action yi am na njëriñ loolu nag toowuñu euh, lem suñuy loxo parce que xamoon nañ ni feebar dañ donc il fallait que ñu jël suñu ay matuwaay euh, ak lii ñëw di nekk màggal Touba ci le court terme ni ñu ko wax woon. moo tamit dans le moyen terme y yaa gàmmu Tiwaawan donc ci loolu tamit lañu ñu gën a accentuer waat euh, gëstu bi ak xayma bi.

nañu wàññi épidémie bi te booy xool Touba li taxoon tamit ñu gën fa dem parce que dañu bëggoon ñëpp kii képp kuy dem màggali mu def ko ci jàmm loolu moo tax système bi vraiment def ko focus euh, détecté cas yi jël ko en charge may waxee tamit depuis premier safar foofu la ñu fekk mu tombeek le 10 wala le 11 octobre tamit waa dëkk bi génn commencé set setal de grande envergure ku dem fu mu nekk ni Touba xam nañ ni set bi ak tamit ak suñuy commune waa service d'hygiène mun nañu am jeexital en tout cas ci feebar bi moo tax ma am yaakaar te loolu tamit journal dañ ko war a transmettre population bi ñun ñëpp buñ ci jàppee mun nañ en tout cas comme ñu def Fatick ah génnee dengue bi ci lu gaaw pour que en tout cas ñiy dem màggal mun na màggal ci jàmm loolu nag lu tax ñu banque suñuy ba euh, loxo di nelaw tey la ñu gën a waat vigilant parce que tey booy xool ci Sénégal yëpp boo bépp euh, bërëb euh, bërëb fajukaay boo dem dañ fa bàyyi ay ndigal képp gis nekkul ak Touba képp gis kaasu sukkee ci bërëb fajukaay yi am na ay jumtukaay am na xam-xam boo notifié ko pour ñu gën a renforcer surveillance loolu moom moo amoon laa amoon lay wax di wax ni population bi tamit xeex bi nekkul rek xeexu nit euh, ñun waa docteur yi mais dafa nekk xeexu askan bi parce que ci mesure de lutte yi dafa am lu ñuy wax des mesures de prévention individuelle loolu ñun la suñu bopp maanaam def kémta lay kàttan ba ñu nag Yoff yi du am contact suñu suñu diggante li ko mën a joxe bëri na colonel wax na ko sol ay yëre yu xaw gudd wala tëdd ci moustiquaire imprégné loolu dañ ko doon wax euh, saa su ne wala tamit ku ko am am na ay produits yu ñu jaay pharmacie yoo nga xam ni boo ko diwoo Yoff yi dina la lépp lu nga xam nag mu ngi jëm ci mesure de prévention collective ah ñu ngi def suñu kéemtalaay kàttan avec agent de santé tey boo demee Touba ci euh, daara yi li ñu wax décision de Gilles Lambert ak wa service d'hygiène dañoo and pour euh, pour euh, pour def ko tamit and ak tamit wa district bi nekk fofu Touba di liggéey ñu en tout cas mobiliser sen acteur communautaire pour que réponse bi mëna a nekk lu nga lu adéquat parce que li am solo moy vraiment balaa magal bi ay yi que vraiment risque bi ñu pour que après magal bu am yenn nous jafé loolu euh, niveau national dem Touba santé mettre en place benn dispositif xam ko mais renforcer ko et gëm nañ ni en tout cas li war nañ am